ñu jóge fa coow li bàyyi Ndongo loo bàyyi na ba. Ndongo loo est-ce que moom est-ce que Ndongo Lo du découragé. yooyu yëpp nga dégg ko nga gis Cheikh Tidiane Niang li mu jot a def ci làmb muy lutte simple lutte avec frappe xam nga turam di dem muy wëy dem ci àll bi di ñëw ka 10 yu mu jooy teg moo franc ñëw final franc daan ko mu nekk koo xamante ni bañkat la nekk koo xamante ni daanaan la mën a bërëm dañ ko koy nangul bu baax a baax. ñu dégg ne Mbaye Yékini jox nañu ko avance Mbaye Yékini woowu la. waaye yaa na nañ la jox combat bi la moo dox nga nga nga nga nga nga bëgg a bëgg Cheikh Tidiane Niang nga am ozu teg la ay defet ba noppi dem jëli Cheikh Tidiane Niang. non laaju ma ko combat bi war a taxaw taxaw combat bi moo war a taxaw taxaw Cheikh Tidiane Niang champion la ndaanaan la da ko wane gis ko su ma bëreeg moom war naa bëreeg moom. billaay wallaay suñu waroonu bëre fekkoon waru woon waruñu woon bëre duñ bëre mais yàlla daal dogal na ñoo war a bëre waaw ah, mais lan moo tax nga nangu jël Cheikh parce que gis nañ fi mbër yu bëri yoo xam ne dañ leen proposé ñu ne bëgguma bëri ak moom wala bëriwuma wala xaaral dem laaj samay mbokk ñëw la samay mbokk d'accord mais lan moo tax nga nga jël combat bi. làmb da nga koy jël jël lépp takku ci loxo suñu borom man du ma ragal mbër du ma tiit mbër noo mun di toll dama jàpp doomu aadama comme man yàlla da lay ragal te ñàkk ko gis rek moo tax. loolu la quoi mais champion la yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla may ko wér gudd fan bu booba. ñu dégg na léegi jóge nga Grand Médine xaw ma équipe nu mu tudd sax léegi yaa ngi ci PBM Ndiaye. waaw dugg naa écrit Sa Ndiambour. Sa Ndiambour. maa si Ndiaye parce que dama sàq jiwaat xam-xam sama xam bu mu amoon dama ko xeeb ma tax ma jiwaat xam te gëm naa ne fu ma nekk naa fa am xam-xam. am xam mhm. bi nga déggee ñu ne euh, Cheikh Tidiane mu la ëpp mystique. te xam nañ ne sa ndaanaan la mu dëkk Parcelles aussi bi nga déggee moo ëpp est-ce que ëpp la mystique tamit parce que commentaire yi bëri na ci trop te ñi koy seetaan ñi koy commentaire ñëpp ay nitu làmb lañ. yàlla sàkk ñëpp. Mhm. yàlla bind ñëpp. dama jël lekk tëb loxo suñu borom. yàlla yàlla kàttanal jàppale ma ba ma génn si lii ñu naan mënuma génn ci yow diisul ci yow nga jógee ci defet ñëpp ne moo la mën. ba fi nga dëkk parce que su ma juumul moom parcelle la nekk unité 1 yow yaa ngi fi unité 22 xaw ma Grand Médine diisul ci yow ñëpp di wax naan moo la mën moo la mën te yow ci li nga war a dem fi mu toll da nga ci war am xel mu dal comme sànq yi mhm. ne sama conscience tranquille boobu. boobu waaw. dama sama conscience tranquille boobu mais instant ñu toll sant yàlla. mais est-ce que bu ñëpp waxee loolu yan bi sës bi du gën a diis ci bopp bi. non non loolu loolu waxu nit ma waxu nit ñi rek. Hmm. Mhm. mais acteur principal bi man la maa dugg ci biir géew bi xam naa bu baax. yow dama dalal ki nga xamante ni jàmmaarloo mooy émission bu mag bi. ma dalal kii di Saliou ak euh, Diop. bu Cheikh Tidiane. Mhm. mais boo bi am be lu mu ci wax mu ne Ndongo Lo amu ci sens bu bàyyi ma ne ko lu tax mu ne ma Ndongo Lo dafa tuuti Ndongo dafa gàtt ma ne ko as Cheikh Tidiane ñaar luur la ci kaw Ndongo Lo mu ne amu ci sens. cela veut dire Ndongo Lo keroog gis nañ Cheikh Tidiane Niang bi ko Fatima jëlee mais masse bi yokk na te nee na làmb ji ñëwagul. waaw loolu lépp si affaire xeeb nit la rek lu musaa wax xaw ma lépp si affaire xeeb nit la rek ma yàlla baax na daal yàlla ma yàlla jàppale. Mhm. boo amoon kàddu yu mujj lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ak ñi nga xamante ni dañ lay bëggee di la supporter te. jëflante nañ ci waxtaan nañ ci werante nañ ci ak ñenn yi nga xamante ni ñoo doon wax loolu lan nga leen di wax. waaw combat bi combat àdduna la combat ñëpp la muy ñu ma xam muy ñu ma xamul muy ñu may ñaanal ñu ma gis ak ñu ma gisul na ma ñëpp ñaanal na ma ñëpp jàppale ndax combat bi soxal naa si jàppale di jël jàppale bi nag taxu si loxo Binta Ndiaye Binta Ndiaye bi combat la da si jàpp lu si deful ak si moom la. Binda Ndiaye jàpp si combat bi mu ngi tali si jàpp te si te maanaam maanaam da see war a jàpp te gëm naa di si jàpp. incha allah ñëpp di woo nag xam seen doom amati komba combat jàppale ma yiir ma te maanaam xinit euh, mhm. boo nekkee si gox di représenté. couleur gox ba. waa gox ba dañoo xam ne dañoo war a xam ne kii mu ngi représenté suñu couleur. awma xaaj amul seen Grand Médine ba ñëpp benn lañ waa Kër Massar dañ jàpp si komba bi mu si jaar mu si baatin di jël nuyu bi yëpp takk si loxo loo caam laay caam ak di ko di nuyu waa Fandène nag wax leen wax ñu xaar ma. di nuyu ñi nga xamante ji dañuy sonn si man te boobu amaguma komba grand Cheikh ama fayam grand Daouda Mbaw mu nekk Marseille grand Moussa Mbaw grand Dev bu nekk Canada maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm moom jàpp na si tabaski bi di nuyu grand Matar Gueye di nuyu ñëpp ñi nga xamante ji dañuy jàppale Ndongo ak waa Mars Sandaga di jël nuyoo bi teg si loxo Ameth Lo bu Ndongo Lo maa ngi koy baax a baax a baax mais Cheikh Tidiane Niang nag xam ne am na combat. loo koy wax moo ngi lay seetaan. na xam ne émission bi dafa tax mu jógee xaw ma fan ñëw pour rek bi dellu si delluwaat. waaw na xam naa rek yàlla nag mooy maye. Hmm. te yàlla mu yàlla may ndam. mais bi nga déggee bi nga déggee diggante Parcelles la dëkk mu dëkk Parcelles ñu dox combat bi est que amul ñu ko bëggoon yàq wala est-ce que dégguloo ci est que bu ngeen bàyyi noonu Parcelles la affaire yi noonu yooyu amu ci. billaahi wallaahi wa taalaahi barki sëriñ Fallou ma yaakaar. Mhm. bu komba bi taxawee laa doo xam ni Parcelles la dëkk. Mhm. mais xamoon naa ne mu ngi doo dooraat mais xamoo ne Parcelles la dëkk. ok. barki Serigne Fallou du ma après bi ñu ko yëgee nga ne gaawul comme que taxaw na taxaw na. la le coup est hmm. parce que bëri naa fa béy bis ñu parcelle dëkk. waaw Cambérène bëri naa opportunité yu bëri bëri naa ñoom xam nga. mais làmb sax koy doxal. waaw mooy loolu quoi mais nag li ci woo mbër yu mag yi nag parcelle yëpp su ma limee ma juum mais dama dul matal hmm. parce que nit matul li woo mbër parce nag yëpp ak mbër nekk Grand Médine gi yëpp ak waa Sax Xam-Xam. waaw nañ ma jàppale. Père Birame Ndiaye nag moom. ak yéen combat bi Père moom dama naa ko guddal fan rek ba fekkee suñu njëriñ moom daa war a gudd fan rek. te mhm. gars yi ñëw jàppale ma waaye. soxla nga ko moment bi. soxla naa jàppale trop trop nañ ñëw jàppale ma amaana su ma jàppalee rek comme naan lu ma bëgg ci làmb naa ko am ndax talaa bàyyi fi lépp luy wër ci mbër. lépp luy wër si barikat mu ci man nekk gu ma mbër maanaam lépp luy wër si bërëkat mu ci man ndax mata gu ma mbër noonu la quoi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuy sama soxna di nuy sama yaay xam nga di nuy ñaan ñi xam nag moom ñooñ moom maanaam xam nañ seen bopp yàlla dinañ yàlla fay autorité nekk Grand Médine ban na ñoom jàppale ma autorité yi nekk Gambie grand yëpp na ñëw jàppale ma ak yu nekk parcelle parce que Ouzin du ma nëbb de gars yi ma doon jàppale ci combat bi. Hmm? luñ la jàppale doyul xam naa ne xale bi ngay ah, buñ ko xeebee tamit yow xeebuloo ko. non man du ma xeeb. doomu aadama dama ne ñoom waa bu buñ ko xeebee yow xeeboo bis bi laa wax. non xeebuma bés bi waaye bés bi am naa ko. mais bi est-ce que utawul ak yooyu. non non làmb làmb bis bis la rek. Hmm. bis si weesu leen lul bis. ku ne maa xam làmb na ko bàyyi ba dimanche. waaw xam làmb na ko bàyyi mbër day màgg daan. bu loloo. am na ci lu ma jóge am fu mu war a jëm. dama am cër si làmb ji billaay amaana nu mu demee la rek moo tax may bëri Cheikh Tidiane nu mu demee la rek mais tubaab dafa ne il faut reculer. mieux sauter pour mieux dëgg la maanaam dinañ daw bëri sax ci ngóor la bokk. Mhm. lu ma ko ñaan lenn la na ñëw tax dëggal boppam. déet kay doo wax Cheikh Tidiane ñaa moom taxaw dëggal sa bopp rek. na ñëw taxaw dëggal boppam lu làmb la laaj ñu def ko man ak moom tax gëm naa ne amateur dañ kontaan. te est-ce que xam nga làmb ji da nga cee war sa bopp wala boo ko wanee ci sa bopp. làmb ji man làmb la rek. monsieur du weesu làmb amaana foofu gaa tase yeggu fa. moom su ma déggee bi ma déggee commentaire ñi di wax Cheikh Tidiane Niang moom moo Ndongo Lo Cheikh Tidiane amul palaan euh, Ndongo Lo dafa bëgg a bàyyi làmb dafa maa metti wax jooju te da nga bokk ci làmb. Ndongo Lo amul plan de carrière Ndongo lu man wax yi ma wax yi ngay dégg nii ah. billaahi wallaahi wa taalaahi amaane wàññeeku na sax. wàññeeku na ba may doog a bëri laa ko doon dégg ndax boobu maa ngi mel ni calki calki ba léegi maa ngi dégg lii. non yi bu koy wax ci maanaam ndomb de defet yi nga jugee am ci ay gàkk-gàkk. nga ñëw dal ci Cheikh Tidiane Niang mi nga xamante ni moom gars yi su ma déggee ñooy xalaatu ne day daanu. amante yi gaa yi seen yërmande la ñuy waxee. parce que fu ma jógee ak jamono ñu toll nii ñu gisee Cheikh Tidiane Niang ñu noonu la waroon jël kii du ma leen di nga nag si la ñuy commentaire ndax waxu yërmande la lañuy wax. yow li gaa yi di wax dégg nga ko bu baax. waxu yërmande rek la gars yi di wax mais ñooñu di wax noonu maam nañ ma ñaanal rek. Mhm. yàlla jàppal ma si kombaa bi combat bi ci li nga xamee kan mooy vrai Ndongo Lo. Adama gëm naa ne kii moo jël làmb ji nag. gëm naa ne Ndongo Lo moo taxaw ne nañ ma jox Cheikh Tidiane ñaa waaye yàlla baax na làmb ji ah non su ma déggee ni ngay waxee ni nga amee yaqin ne na la gaa yi ñaanal ci lañ xamee kan mooy Ndongo Lo làmb ji dafa mel am na foo ko teg tamit de. non ji fu mu ko teg moom teg na ko fu ko raw. moom Cheikh. Mhm. dafa yaatu comme géej laa koy xoolee ku ne mun naa tàkk dem sa yoon te teew bëri làmb jaay fa. sant yàlla nag ba ma yàlla maye xel mu sell ba ma yàlla maye courage parce que yàlla su ma may woon courage ba léegi heure bi kenn waxatu ko heure bi diggante sax jël na nga looy interview mais sant yàlla yàlla yàlla dafa jàmm. yàlla man si combat ma Cheikh Tidiane Niang te combat bi lu gën a teel la gën a baax. maanaam fi toll sa yaram dafa na làmb da koo yàkkamti. dama na ma bëree. bëri ba bu ñu woon bu ngeen sëgg nga naa ca. léegi ni ci ñu woon làmb tale ma dem bëri ji nga naan. <laughs> man lu def sama sama téléphone bi crédit ba woo Cheikh Tidiane Niang. <laughs> billaahi wallaahi léegi ma kañ dem bëri ji xam nañ si dara. Taalaame. waaw par force Taalaame. noonu ngay def Cheikh Tidiane Niang. Taalaame. non loolu moom mënoo ko def Cheikh Tidiane Niang. Mm. Cheikh Tidiane Niang jàpp ay franc di foo ak ñoom nga ne da nga ñëw def Cheikh a Niang Adama xam nga Taalaame boo nee école bu la mësul ne Taalaame taalal sa <laughs> loolu mën nga ko def Cheikh Tidiane Niang. Ndongo Lo taalaame bay bay ñëw. kon de ma bàyyi àdduna man. sama génération dañoo dañoo bàyyi xel si taalaame. sa génération ci boppam. Uh-huh. day ñëw de lu mu jël si li ma moom. lu ñuy def dàqu ci ma ko. amaana ay gàkk-gàkk mooy ñëw rek te lépp mbiru suñu borom la lu ñu def dàq ñu ma ko te xam nañ dàqu ñu ma ko Cheikh Tidiane xam xam na ne am na combat. gis ngeen nii lay demee nee na la mais day ñëw ci euh, deux mille vingt bi waaye di wax ne la nga woo waa Grand Médine ñu tàggatoo. waa dara comme d'habitude rek waa Mafia bi baa ngi treize mbaa waa Wuteng waa zone 7B Black dama dugg Grand Yoff nag. Hmm. parce Grand Médine benn lañ kenn mën ko xar ñaar nga tali Grand Médine bi Grand Yoff bi. dama koy dindi mu nekk benn télégramme ni 22 bi dama koy dindi gars yi réunion nañ démb gars yi réunion démb ne bi dañ koy dindi parce que benn la ñun télé waruñu mën a séparer télé waruñu mën a séparer gramme ni 22 dama koy dindi bu kat dindiwul dama koy dindi te taalaamay laa koy dindee. taalaame. Cheikh Tidiane taalaame. Eh. waa di waa Barado yëpp. di nuyu sama nuyu waa gàlle bi ñoom sanu ñoom bekkaay xam nga jël néew bi tax si loxo ñun rek xam nga di nuyu waa 18 tamit ama seen fay di nuyu sama doom ndey xam nga di nuyu Maguette Café bu di nuyu sama fans club di nuyu waa Grand Médine waa waa Suprême waa Thiès waa ñi nga xamante ji maanaam te gisuma leen nag billaahi am na ñu ba am ñoo xam ne. du ay dañ ma ñaan dëgg ma leen di nuyu waa Touba ñëpp di jël nuyoo bi takk su loxo saa Touba moom fayam su ma xarit la su ma ma di nuyu sama boy nag amul ne. gis nga amul nettali noonu lay demee li leen wax rek wasaare moom lépp fépp fu làmb nekk wala fépp fu ndaanaan nekk wala fépp foo xamante ni làmb koo namm dañuy dem jëlil leen ko combat bi dafa nekk combat xam ne combat bu neex la ndax lii làmb da koo namm Cheikh Tidiane Niang Ndongo Lo si gërëm mbay yi bu baax a baax ni lañ koy defee ak yeneen beneen yeneen mbër ci wasaare làmb maa ngi nuyu sama cameraman bi nga xamante ni kenn du moom. di ko siyaa bu baax a baax xam naa Adama kàgg moom tey moo ci àll ba ah. dafa am loo fàtte grand seex mhm. oto nag grand seex oto dugg ci àll bi moom lay xaar. dégg nga grand kon àll oto mu dem wàcc làmb ji ba beneen yoon ci wasaare làmb ak beneen mbër Adama jaajëf.